noonu sëriñ bu mag ba ne ko ndax loolu dëgg la Etiyen tontu ko yéen samay mbokk ak samay baay déglu leen yàlla mi boroom ndam feeñu woon na sunu maam ibraayima bi mu nekkee réewu Mesopotami te dëkkagul woon Karan mu ne ko toxul sa réew bàyyi say mbokk te ñëw ci réew mi ma lay woon ci kaw loolu mu génn réewu niti Kalde dëkk ci karan te bi baayam faatoo yàlla toxale ko foofa dëwal ko ci réew mi ngeen dëkk léegi waaye mayu ko fa genn moomeel gu mu war a donnale du sax fu mu mën a teg tànkam waaye dig na ko ne dina ko may réew mi mu yilif ko moom ak askanam fekk booba amagul doom yàlla ne ko ñi soqi ko ci yow dinañu ganayaan ci réew mu nu dëkkul des na leen def ay jaam di leen fitnaal diirub ñeenti téeméeri at waaye yàlla nee na xeet wi leen jaamloo man maa leen di àtte te ginnaaw loolu dinañu génn di ma jaamu ci barab bi yàlla nag tëral kóllëre seen diggante fas ko ci màndargaam xaraf noonu Ibrahima jur Isaaxa xarafal ko ci juróom ñetteelu fan ba Isaaxa def noonu ba yanqooba it def noonu fukki maam ya ak ñaar ñi sos xeet wi naka maam yooyu dañoo iñaane yuusufa ba jaay ko mu jëm réewu misira waaye yàlla taxawu ko génn ko ci coonoom yépp defal ko yiw ak xel ci kanam na buuru misira mu def ko kilifaak misira ak këram gépp bi loolu amee xiif tàbbi ci biir misira ak réewu kanaan mépp ba toskaraje metti lool te sunuy maam amatuñu lu ñu lekk ba nag dégg ne misara am na dugub mu yebal ca sunuy maam ñu dem fa yoon wu jëkk ba fa ay doomi baayam delloo nag yuusufa xàmmeeku leen te firaw na xamante ak njabootam ci kaw loolu yuusufa yeble woo baayam ak mbokkam yépp ñuy juróom ñaar fukki nit ak juróom noonu yanqooba dem misra faatu fa moom ak sunuy maam gannaaw loolu ñu yóbbu seeni néew sikam dugaleen ca bàmmeel ba Ibrahima jëndoon ak xaalis ca doomu emoor ca sikam bi loolu wéyee jamono ji jege woon na ngir yàlla amal li mu digoon Ibrahima ci ngiñ fekk xeet wa di law tey gën a bari ci misra ba keroog beneen buur bu xamul yuusufa di falu ci misra buur boobu nag dafa daan nax sunu xeet di fitnaal sunuy maam ba di leen sànniloo seeni doom ngir ñu dee booba nag la muusaa juddu di ku rafet ci kanamu yàlla ñu yor ko ñetti weer ci biir kër baayam ba noppi sànni ko noonu doom ju jigéen ju na for ko yar ko ni doomam musaa nag di ku yeewu ci xam-xamu waa misira bépp di jàmbaar ci wax ak jëf bi mu demee ba am ñeent fukki at mu fas yéene seeti ay mbokkam maanaam bànni Israyil noonu mu gis ca ku ñuy néewal doole mu sotle ko fayul ko ba dóor waay misire ja mu defe ne ay mbokkam dinañu xam ne ci loxoom la leen yàllay musale waaye xamuñu ko ci ëllëg sa mu juux ci ay yawut yuy xeex mu di leen jéem a jubale ne leen yéen ay mbokk ngeen lu tax ngeen di xeex waaye kiy néewal doole moroomam bëmax ko ne ku la teg kilifa ak àttekat ci suñu kaw ndax danga ma bëgg rey ni nga defoon démb waaye misira ja bi Musaa déggee wax jooju mu daldi daw dem réewu Madian di ab doxandéem mu séy fa ba am ñaari doom lu ko wees ñeent fukki at nag bi mu nekkee ca màndingu tund yi malaaka feeñu ko ci tàkk-tàkku safara ci biir as ngarab bi ko musaa gisee mu daldi waaru ci li mu gis mu jigéen si ngir niir ko dégg baatu boroom bi ne ko man may sa yàllaay maam di yàllaay ibrahima isaaxa ak ba ci kaw loolu musaa tiit bay lox te ñemeetu xool noonu borom bi ne ko sumil say dàll ndaxte barab bi nga taxaw barab bu sell la gis naa bu baax fitnaay samay xeet ci misra te dégg naa seeni tabat kon wàcc naa ngir musal leen léegi nag ñëwal dinaa la yebal misra musaa moomu bañoon nañu ko ba ni ko ku la teg kilifa ak àttekat waaye moom la yàlla yebal jaalale ko ci malaaka mi ko feeñu ca ngarab sa ngir mu nekk kilifa gu leen di goreel moo leen génne réewu misra di def ay kéemaan ak ay firnde ca réew ma ca géej gu xonq ga ak ca màndik ma diirub ñeent fukki at musaa moomu moo ni woon bànni israyil yàlla dina leen feeñalal ci seeni mbokk yonent bu mel ni man te moo nekkoon ak mbooloo ma ca màndik ma ànd ak sunuy maam wettalikoo malaaka mi waxoon ak moom ci tund sinaay yi te mu jote ci yàlla kàddu yiy dund ngir jottalinu ko waaye sunuy maam nanguwuñu ko déggal dañu ko bañ te seeni xel dëpp dellu misra ñu sant aarona ne sàkkal nu ay yàlla yuy jiitu ci sunu kanam ndaxte musaa male nu génne ci réewu misra xamunu lu ko dal booba nag ñu tëggulu aw sëlu muy xërëm ñu di ko tuuru di bànneexu ci seeni jëfi loxo waaye bi ñu ko defee yàlla dëddu leen bërgël leen ñuy jaamu biddiwi asamaan moom lañu bind ci téere yonent yi ne yéen bànni Israyel ndax rendi ngeen jur jébbal ma boole ko ak i sarax diirub ñeent fukki at ca màndiŋ ma yóbbu ngeen sax fu nekk tànt bi màggalukaayu molok ak biddiwub rafan bi ñu daan bokkaaleel yàlla di ay nataal yi ngeen defoon ngir màggal leen kon nag dinaa leen toxal yóbbu leen ci ginnaaw réewu babilon sunuy maam amoon nañu ca màndiŋ ma tànt màggalukaay bi ëmboon li yàlla seede tànt boobu nag defoon nañu ko roye ko ci bi musaa gisoon ni ko ko yàlla sante woon te gannaaw ga bi yosuwa nekkee kilifaak sunuy maam ñu jot tànt ba ñoom it yóbbu ko ca réew ma ñu nangu ca xeet ya yàlla dàqe ci seen kanam tànt ba nekk fa ba ci jamonoy daawuda moom yiw na fa kanam yàlla mu ñaan ko mu sàkkal ko kër ngir askanu yanqooba waaye suleymaan moo tabaxal yàlla kër ga mën na aj kawe ji du dëkk fu loxool nit defar moom la ab yonent wax ne asamaan mooy sama jal te suuf mooy sama tegukaayu tànk kon gan kër ngeen may tabaxal mba fan mooy sama bërëbu nappalukaay ndax du sama loxo moo defar yëf yooyu yépp moom la borom bi doon wax yéen ñi dëgër bopp ànd ak xol buy bañ ak ay nopp yuy fat mel ni ñi xamul yàlla du ngeen noppeeka diiroo ak xel mu sell mi eh, ni ko seen baay yi daan defe noonu ngeen di defe yéen itam kan ci yonent ya la seeni maam tegul woon ay fitna rey nanu ñi doon yégle ñëwug aju jub ji moom mi ngeen jébbale léegi ba ñu rey ko jot ngeen yoonu musaa wi yàlla wàcce jaalale ko ci ay malaaka te sàggane ngeen ko bi ñu déggee loolu nag seeni xol di dagg ñu yeeyu jëm ci kawam waaye Etiyen mi fees ak xel mu sell mi ne jàkk ci asamaan gis ndamu yàlla te gis yéesu mi taxaw ci ndeyjooru yàlla mu ne seet leen maa ngi gis asamaan yi ubbeeku te doomu nit kaa ngi taxaw ci ndeyjooru yàlla bi ñu déggee loolu ñu daldi xaacu ca kaw te dar seeni nopp ñu ànd ne milip ci kawam ñu wat watee ko génne ko dëkk ba dóor ko ay doj ba mu dee seede ya tegoon nañu seeni yéere ci tànki waxambaane wu tudd sawul noonu ñu dóor Etienne ay doj muy ñaan yàlla ne borom bi yéesu nangul sama ruu bi mu ko waxee mu sukk wax ak baat bu kawe boroom bi bu leen bindal bàkkaar bii ba noppi mu nelaw